wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calaynaa bi macrifati lcilmi wa xathin axlaaqanaa bilxilmi wa saxil lanaa abwaaba fadlika wansur calaynaa xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen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 di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu nangul di ko ñaan mu boole ñu sàmm defal ñu jàmme àdduna defal ñu sutras alaxira ñoo ngi nuyu soppee Al Misbah yëpp di jaajëfal bu baax Oustaz Alioune Mbaye mi fi fanaan ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu sàmm ko di nuyu jàngkati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi di nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi ñaan borom bi mu nangul ñu sunu koor koor gaa ngi dem yal ñu fi bàyyi buy dellusiwaat siwaat na ñu fi fekk waaye yal nañu ci borom bi defal sippeeku bakkaar defal ñu ci nangu ay jaamu yàlla te xiir ñu ci ñu mën koo déggal te li koor gi li ko tax a jóg te muy defaraat suñ digganteeg suñ borom subhanahu wa taala yal nañ fi jaare gën a jubook moom di gën di sonn ak di taxaw ci li nga xam ne moo ñuy may ngërëmam yàlla mën na ko yàlla nañu ko boole defal ñoo ngi nuyu soppee Al Misbah yëpp ku lim juum ñoo ngi leen di bége bu baax a baax di békki ni ngeen di toppe waxtaan wi di békki safoo gi ak mbokkoo gi ndax loolu mooy tombi waxtaan wiñ toll te mooy ab julit mooy al islaam bu boobaa nag day jaadu ñu xam mooy kan ak lan moo dox ci ay digganteem ma nekkoon di jéem a indi yenn ci xadis yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ciy tudd baat boobu nga xam ne léeg mu nekk baatu muslim wala yu demee noonu ndax wax ne doon naa ko moo gën a yomb doon ko waaye nag wax ci da ciy boole nit waaye ay jëf moo la ciy bàyyi da ngay wax ngir dugg ci waaye jëf yi nag moo la ciy bàyyi bu ko defee bi nga waxee ne bokk naa ci diine ji ay baat la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la daan wax yéefar yi wax leen baat sàngam ak baat sàngam bu ko defee mucc suñu diggante ñu daal di nekk ay mbokk bu ko nit ki waxee ba noppi nag te mooy baat yi tax dugg ci diine nekk ci day teg day tegtale ne li muy wax ci làmmiñam lu muy gëm ci ab xolam lay doon da koy fas ci ab xolam waaye gannaaw pas-pas bi ci xol bi ñun duñ ko gis jëf yi ci cër yi nag moo koy firndeel moom lay ànde ak waa àdduna moom lay doxe digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala moo tax góorgóorlu ba jëf yi rafet baax na lool bañu jël yëf rek wékk ko ci xol moo moo takku yàlla xol lay xool comme nu baree bare niñ koy waxe ci pénc mi nga xam ne nit mën naa solo nu ko neexe wala nu mu bëgg a soloo mën naa waxe nu mu bëgg a waxe mën naa def yu mu bëgg a def ci kaw boo koy xool lépp day wuuteeg njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam wuute ak diine waaye nag mu ne la yàlla moom xol dong lay xool xol lay xool waaye li ci xol bi nag daa war a feeñ ci cër yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag nee nañu boo gisee ab jullit muy dem ca jàkka-jàkka ñëw di julli na ko seedeel ak njullite na ko seedeel ni kii ab jullit la li ci des nag muy li biir xol bi nga bàyyi ko borom bi subhaanahu wa taala ndax xadis bi ma jàngoon démb bi may jeexal yonent bi daa waxoon ne bul xeeb kenn ndax lii tax a mooy ragal yàlla te ragal yàlla fii lay nekk lim junju ci dënn bi mooy ragal yàlla pas-pas lay doon boo xam ne léeg-léeg eh, col dana ci feeñ aku doxin waaye léeg-léeg itam nit solo noo xamante ne solinu ku ragal yàlla la waaye ay jëfam doon jëf yoo xam ne jëfi leneen la léeg-léeg nit sol col goo xamante ne du ma wax solinu ku ragalul yàlla la ndax bu boobaa moom leneen lay doon waaye day tegtale ne du tegu ci mbub mu oyof wala ku mel ne ku néew daraja déedéet day tegu ci pas-pas ak ay jëf ak góorgóorlu foofu la ñuy xoolee ki nga xam ne moo nekk ci yoon wi ak ki nga xam ne nekkul ci yoon wi loolu mooy li ci mat a jànge euh, ñun ak mbaax léeg-léeg dañ koy teg ci nit ku siiw wala mbaax gi ñu teg ko ci euh, nit koo xamante ne daa am ay xéewal daa am ay xéewal bu gaa yi di waxi waaju yàlla baaxal sax léeg-léeg ku man boppam lay doon doon donte mën naa ànd waaye ak mbaax daal mooy ak ragal yàlla ragal yàlla nag palaasam mooy xol jaam bee ku gën a xam boppam borom bi subhaanahu wa taala moo ko gën a xam moroomi jaamam li koy yóbbe lool nag te nga man cee ànd nit ñi mooy dootoo àtte kenn doo doon nit kuy àtte nit ñi jàpp ne diwa gën wala yow yaa gën waaye sax léeg da ngay jàpp ne sax dañ laa gën waaye du tax nag nga jàpp ne danga bon mhm. da ngay jàpp ne sax dañ laa gën waaye du tax nga jàpp ne dangaa bon waaye yëg-yëg yi nga am ci li dox sa digganteek sa borom subhaanahu wa taala te nga war koo taxawee da nattab le ndax taxawee nga lépp wala déet ndax tey fi mu ne boo ne woon xéewal yi ma yàlla defal dong naa xool li ci li ci waroon ci ak cant ndax sant naa ko lépp boo moytuwut nga ne ah baa cant gi desut ndax li la yàlla defal ci ay xéewal mënoo koo lim wa in tauddu nicmatallahi laa tuhsuha borom bi nee na li ma leen defal ci ay xéewal bu ngeen ko doon lim mënu leen ko du jeex ndax lépp man la waaye li la dal ci ay mettit sax nga war ko muñ te muñ gi dox sa digganteeg sa borom ndax ni ko muñe dong noonu la boo koy xool da ngay yëg ne dafa des moo tax doo sukkandiku ci say jëf ngir jàpp ne yow da jege yàlla wala nga sukkandiku ci say jëf ngir jàpp ne yow da baax doo sukkandiku ci say jëf ngir jàpp ne jënd nga sa jënd nga sa àjjana ba noppi ndax mbir mi bu delloo ci eh, diggante jënd ak jaay ak ñu calculer la li nga def fay la ko donc boo moytu boo demee yow mal xiyaam da ngay perte ndax borom bi subxanahu wa taala bu génnee lim am ci yëf yi bu dee problème mu chiffre d'affaires la bu génnee ngelawam li nga doon nooyi nga fay ko ko génnee suufam si nga doon dox génnee kattan gim la may ba nga mën a sëgg ka siggi génneel la wér gim la jox ba nga man ko yooyu yëpp bu ko génnee ba mu jeex boo moytuwul julli gi dara lu ci des kon sukkandiku ci ay jëf day wàññi tiyaaba jëf yi danga koy jëf. yaakaar ci fayu borom bi subhaanahu wa taala waaye da koy jëf te yàlla dongu tax nga xam ne yéenee ma tax boo noppee nga bàyyi borom bi ak coobareem boo noppee nga bàyyi ko ak coobareem euh, loolu ab tolluwaay bu ama am solo la ndax am njëggalul yàlla moom jëfewut dugg àjjana it jëfewut fasanu yasiruhu lil yusra loolu la waxoon ka nga xamante ne dafa ragal yàlla ba noppi te lu mu am joxe ko mu ne ko danaa ko yombalal lu yombali te mooy dugg àjjana te mooy dugg àjjana wa amma man ata wa taqa wa sadaqa bil xusna kooku fa sanu yassiruhu lil yusra danañ ko yombalal li nga xamante ne moo yomb te mooy dugg aljanna ci buntu boobu sax bu ñu xoolee njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci baatu muslim dañuy gis xadis boo xam ne Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu moo ko nettali moo nekkoon ñetteelu xalifa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di Seydina Ousmane nee na dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan laa yatawaddaxu rajulun muslimun fa yuxsinul wuduuxa fa yusallaa salaatan illaa xafara allahu wa bayna salaati allati taliihaa Seydina Ousmane nee na dégg naa ku tedd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di wax naan ab jullit day du jàpp njàpp mu rafet njàpp mu mel ni mu war mel njàpp mu matale ba noppi dem julli ji lu dul ne borom bi da koy jéggal bàkkaaram yi dox diggante julli googee ba ba muy julliwaat allahu akbar ndekete li tax ñu suturaal la li tax ñu jéggal la euh, lu bari la waaye góorgóorlu ci jaamu yàlla da cee bokk mooy li ma la waxoon ne la mbir ya mën naa bañ a jafee noonu mu ne jullit bi nga xam ne dafa jàpp njàpp mu sell njàpp mu rafet borom bi subxanahu wa taala jég dem julli ji ca na mu ware borom bi jéggal ko la dox digganteem ak julli googee loolu dañ ciy dégg ne julli kon dafa am lu muy def ci yow ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar njàpp mi dafa am lu muy def ci yow ndax daa bokk ci li waajal julli gi ci yow ba noppi di la moytandikuloo ak xayadi ak taq sobe waaye ku jàpp-njàpp mu rafet julli ni mu war a jullee dafa am lu julli gi di def ci moom ay jeexital jeexital yooyu da koy jural suñ borom baal ko rëcc-rëcc yi nga xam ne moom lay def maanaam manki manki doomu aadama yi ndax dafa am loo xamante ne doomu aadama da koy def waaye du doon ak mbonam waaye ak eh, ak dem la maanaam dafa naturel ci moom borom bi moo ko mooñe noonu ndax nit moom yàlla ne woon na malaaka yi xam naa lu ngeen xamut xam naa ne def katu bàkkaar la waaye am na leneen lu man nag loo xam ne man maa ko xam yéen xamu leen ko kon def bàkkaaru nit ci kanam boroomam du lu ko bett du lu bet yàlla du doon surprise te du ko wàññi dara itam du wàññi dara borom bi waaye góorgóorlu nag ba bañ koo tey loolu moom luy bégloo borom bi la te luy tax mu kontaan ci jaam bi la moo tax na nga góorlu ba booy def bàkkaar mu tudd njuumte waaye du tuddu tayeef ndax waroo koo tay di ko def boo ko tayee di ko def rek ak tooñ la boo ko tayee di ko def rek ak tooñ la sa borom mere na la bu duggee ci cadre njuumte rek sa borom noppi na ngir jéggal la ci yow la des bind na ko waaye noppi na ngir far ko yëmut ci noppi ngir far ko te mooy effacé ko noppi na ngir fa mu ko bindoon te mooy lu ñaaw mu bindal la fa lu rafet ci kawam mi ngi aju rek ci yow taxawaay bi nga xam ne moom nga ci am ak ni nga nar a góor-góorloo ci li nga xam ne moo ci aju moo tax na nga góor-góorlu ba sa digganteeg sa borom jag waaye na nga góor-góorlu ba sa digganteeg nit ñi jag sa digganteeg sa borom jag daa bokk ci li lay may aljanna wax naa la ko léegi ca njàpp ma ca julli ga ca koor ga ta sa borom tax ca aj ga ca ta sa borom tax jaamu yàlla yim la digal tam dox sa digganteeg nit te mooy joxe sa alal nit nit nga koy jox saraxe nit nga koy jox jëflante yu rafet yi dox sa digganteeg nit te ma tudd muslim ba tàyyi teg ko ca da cay gis ne loola moom góorgóorlu ca sa kemtulaayal kàttan lu war la Euh, Seydina Ousmane mi ma nettali xadisam léegi nettali na beneen xadis boo xam ne ñoo bokk nu ko waxee ndax dane damaa digg kon moom day tegtale ne daa jaxasoo woon ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci xéewali yàlla yi ko defaloon la bokk muy dund ci jamonoom man a wax ne kenn nettaliwu ma maa dégg dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan di wax naan laa yaxillu dammum ri'in muslimin illa bi ihda shalashin nee na dereeti ab jullit du dagan ci mbokki jullitam ñu tuur ko lu dut ci ñett yi benn wala benn ci ñett yi koo xam ne dafa nekkoon ab jullit ba mu yàgg mu murtat génn ci diine ci kufrun baxada islaam koo xam ne dafa weddi lislaam te doonoon ab jullit ba mu yàgg nga xëy suba bàyyi léeg-léeg mu am xëy na suñu réew yi mën nga ko fee bañ gis lu bari waaye léeg-léeg nga gis ko nit dem ba mu yàgg rek mu xëy suba rek bàyyi diine ji yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla saxal yàlla nañu faatu ci lislaam dekki ci lislaam dëkk ak waa lislaam ëllëg yowmal xiyaam ci aljanna yee gën a kawe ndax lu jara ñaan la léeg-léeg nit tàmbuleeg mbaax ba ñëpp gis ko muy ku jub baax lool nga seetlu rek gis ko mu tàmbulee soppeeku nga seetlu rek gis ko mu tàmbulee soppeeku tàmbulee eh, sori sori mbaax gi ak li doon tax a baax ak melokaanu mbaaxam ki mhm. ba mujj rek nga xam ne kii am na lu ko dugg léeg-léeg nga gis nit koo xam ne dafa xawoon a sàggan xaw a num tuddati ba tax doo ko boole ci ñi nga xamante ne nii eh, ay tànneef lañ waaye nes tuut rek nga gis muy góorgóorlu di jege si rek ba mujj nga ne xanaa du kii tàmbali doon nit ku teey tàmbali di wax ndànk tàmbali di baale lool jékki-jékki lewet lool alalam dootu ko boole nit ñi yu bari yoo ko daan def ñëpp di leen dégg ngay gis ñi koy def muy sëgg mu jàll nga xam ne kii mi ngi tàmbalee baax moo tax lislaam doon ñu wax naan ñu foto bayanu mbir yi moom dee leen ci tey dee leen ci tey bu ñu bu ñu àtte tey dong dong bu ñu àtte tey dong dong yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kon ki nga xam ne dafa doon ab jullit ba mu yàgg mu xëy génn ca kooku bu doon réew mu ñu àtte woo lislaam deretam dagan na ki nga xam ne dafa am soxna wala soxna si am borom kër ba noppi njaaloo maanaam dem jote geneen góor buron doon dañuy attewoo lislaam bu siiwee te ñu yëg ko te seede yi ko war a seede daje borom bi subhaanahu wa taala daganal na deretam ki nga xam ne dafa rey nit dafa rey nit te kooku reyut nit maanaam rey nit rey ku reyut ku rey nit moom te tey ko dagan nañu rey ko bu ay mbokkam baaliwut ateye ca aju yépp bu dajee ah, Seydina Ousmane ba mu déggee wax ji ba noppi mu ne fa wallahi ma zanaytu fi fi jahiliya wala fil islam xat mu ne maa ngi wàcc yàlla ne njaaloo moom mosuma koo def ca jamonoy ceddo ga laata may dugg ci lislam bi ma duggee ci lislaam itam defuma ko ak yem ca teg ba xadis ba jeex ñooñu mooy àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne borom bi da koo tànn muy ab yonent waaye mu tànnal ko ay àndandoo mooy suñu kilifa yu baax yooyu ci wàllu diine ñoom Seydina Abubakrin Siddiq nga xam ne yonent bi daa waxoon ne law kuntu muttaxida xalilan lattaxastu aba bakr walakin aqi wa saaxibi waaw euh, bu fekkonte ne day damay am ab xarit maanaam damay am ab xarit yonent bi moom du koy xaritoo xam nga xarit euh, nitu nitu simple simple simple ba mel ni ñun moo koy am moo koy am xarit dafa am neneen lu muy lu muy taxawee yëfi yëfi yëfi yëfi nit kuy mott lente la mhm. euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mission bi mu yor ak ni mu ko tege ci pénc mi day am ay àndandoo day am ay àndandoo day am ñoo xamante ne day ñëw bokk si ci yëf yi man anzaari ilallah la la la euh, loolu la yonent yàlla Isa waxoon kan mooy ñëw dimbali ma kan mooy ñëw dimbali ma ñu ànd dem ca yàlla waaw ñu ko doon dimbali ba ñëwee dañ ko ne nahnu ansaarullahi aman naa bi ñun kay ñooy ñëw dimbali yàlla gëm nañ ne moo la yónni nag gëm nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam digganteem ak ñooña noonu la mel danañ ci mas a ñëw insha allahu taala ci lu gën a yaatu ci wàllu muslim ak xadis yi nga xam ne moo ko tudd beneen dénkaane ngi nii boo xam ne abdullahi ibnu omar di doomi seydina omar ibnu xataab yal yàlla gërëm ko mook baayam nee na yonent bi salaatu wasalaam nee na maa aqu imri im muslimin lahu shay yuridu an yuusiya fiihi yabiitu laylatayni illa wasiyatuhu maktubatun inda neen dafa bokk ci yi nga xam ne ab jullit da ko war a def mooy di dénkaane di bind dénkaaneem ñaari fan yu ne wala ñetti fan yu ne wala ñeen fukki fan yu ne nga bind sa dénkaane mooy di waajal di waajal sa jóge fi bañ mu bett la rek ab jullit kon day suuraale ak génn àddunaam ak génn àddunaam day suuraale ginnaawam waxuñu nga miraas sa bopp nag wala nga naan kër gi diwoo ko moom alal ji jox naa ko diw li jox naa ko diw séddale sa alal toog déedéet dañoo bëgg rek nga bàyyi xel yow ci sa bopp say bor bàyyi xel li nga am ñi nga ameel ñi la ameel ak yi nga xam ne moo ci aju loolu waxuma sax nga di ko bind waaye boo ko defee ci sa biir yuur gi rek am na yu baree bari doo ci dugg ndax da gëm da ngay gëm yowmal xiyaam te da ngay gëm daje gi nga war a dajeeg sa ëllëg te loolu boobaa dana la dimbali ba yu baree baree baree bari dootoo ci dugg yu baree bari boobaa dootoo ci dugg ndax ki nga xamante ne fu mu toll mi ngi xalaat ak bàyyikoom fi xalaat ne moom kuy faatu la xalaat ne du fi sax nga xam ne mën ngaa xëy liggéeyi génne sa bopp sa kër waaye mën naa am doo dellu siwaat boo muy tuut say yére la indi ak say dàll ñëw yëgal ko sa waa kër ñaata nit ñoo xëy defaru dem liggéeyi te ñibbi si hmm, yal na yàlla sàmmuñu sàmmu leen bañ xëy ci jàmmu dellu siwaat ci jàmm waaye buñ ñee amiin ba noppi ñu xam ne borom bi subhanahu wa taala aji sañ la aji man la aji xereñ la te kenn du weesu ab bisam ki xëy suba di sol mbubbam bu sañoon moo koy summilaat boppam waaye bis bi bari nañu xëy solu te summi wuñu seen bopp dañ leen a summi noonu la yàlla mooñe àdduna bari ki dem rek ñu ngi ci am suñ benn xarit euh, bu tudd Modou Diop nekkoon fii ci euh, Scat Urbam jàkkaarloo ak ñun nga xam ne fi muy raxase ay oto fa la jékki daanu Euh, yóbbu di xool mu daal di wuy ji boroomam subhaanahu wa taala ci saasa ci ndaw loo xam ne boo amee ñeent fukki at da koy door a am man ngaa wax ne jàmbatul dara weeru koor la xëy see di kafakaree ndekete doo weesu àpp bi nga bi nga nekk borom bi subhaanahu wa sañ na loolu sañ na loolu yal na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna waaw ku ñu doon bàyyi xel la doon te ndaw la daan rafetlu liggéey bi ak jox ñu war ma lool akub cër yal na ko borom bi subxanahu wa taala fay eh, war ma jooju ak cër boobu nga xam ne joxoon na ko lislaam noonu mooy li nga xamante ne ab jullit da koy koy bàyyi xel bu boobaa kon ba na lépp lu muy def mu di ci suuraale borom subxanahu wa taala xadis boo xam ne abi darda radiallahu anhu moo ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy wax ne yonent bi nee na ma min abdin muslimin yad'u li bi zahri alxaybi illaa malaku almalaku walaka bi misli yonent bi nee na ñuy wax lu rafet ci suñ mbokki jullit ñuy wax lu rafet ci suñ mbokki jullit nee na amul benn jaam boo xamante ne dana tudd mbokkum jullitam ginnaawam wax ci moom lu rafet ñaanal ko lu dul malaaka yi dañ ko naan ak yow yow itam yal na nga am lu toll ne ko ñaanal waaw nga xam ne ku kuñ tudd ci sa ginnaaw rek na nga wax ci moom lu rafet ndax boo ko xamee na nga ko wax boo ko xamut na nga maandu waaye bul bul seede lu ñaaw ci eh, nit ñi bul seede lu ñaaw ci nit ñi toog ci jotaay kuñ tudd nga jéem koo sikkal nga xam ne yow eh, kuñ wax rek nga ne ah ko de nangam xamoo ko sax ndax nit ñi moom ñu ci bari bu dee nit ku amu tur sëñ Abdou Akim Dieng sama xarit bee moom ma koy wax nee na ma ñaaray am nit wax dara ci yow ci xameel ngir yëkkati kooko wala nit yàq la ngir yëkkati boppam am na koo xamante ne ki muy sikkal sikkut waaye da koy sikkal ngir bëgg a yëkkati boppam da koy sikkal ngir bëgg a boppam waaw wax lu ñaaw ci nit waaye liñ ci jublu rek mooy bëgg a yëkkati ko yow ngir bëgg a wane ne yaa ko gën am koo xam ne du wane ne moo gën kenn waaye day bëgg a wane ne moom ñëpp a yem maanaam moom daal baaxut waaye kenn du fi baaxe ñun ñëpp a yem rek programme waxam yëpp mooy ñun ñëpp bon ñun ñëppay wax lu du dëgg ñun ñëppay jëw waaw ñun ñëpp ñun ñëpp bon <laughs> waaw moo tax kuñ tudd ak mbaax rek moom safaanu mbaax ga lay wëri safaanu mbaax ga lay wëri yal nañu ci yàlla musal yonent yàlla Muhammad nee na koo xamante ne dañoo tudd sa mbokkum jullit wala koo xam ne daa ñaanal mbokkum jullitam fu mu nekkut fu mu nekkut ndax daa bëgg yëf yi sell daa bëgg yëf yi sell moo tax léeg nga war a say loxo ñaanal sa mbokkum jullit fu mu nekkut moo tax ku yew dëgg-dëgg ku lay ñaanal ci sa kanam ngay dégg baax na waaye rafetal njortu ci eh, ñi ngay defal njekk ne fañ toll it ngi lay ñaanal nga bañ caa wut aw tagg ndax sa borom subxanahu wa taala noppi na waaye yow miy ñaanal ab jullit fu mu nekkut yow ci sa bopp da ngaa muccut ci ñaan gi ndax am nga lu toll ne lim am am nga lu toll ne lim am moo tax buñ ko tuddee na nga ko ñaanal buñ ko tuddee na nga ko ñaanal ku mel ne Oustaz Alioune Sall ku ma tudd rek mu ne yàlla na ko yàlla yokku wér. waaw yal ko yàlla yokk sàmm bu dee ko faatu mu ne yal ko yàlla yërëm mm, nga xamante ne day mujj ñaan gi day taq ci saw làmmiñ ba doo tudd ab jullit rek daal di jàll noonu sa xel du nekk ci moom nga bàyyi noonu danga koy ñaanal nee na saa ko ab jullit defee malaayika yaa ngi koy wax ne ko li nga ko ñaanal yow it na nga am lu tol noonu yal na nga am lu tol noonu yal nañu yàlla may suñu ànd gën a rafet ndax lislaam soññ nañu ci ba tàyyi dégginu xadis bii daa bokk ci liy wane ne ànd bu rafet soxal na lislaam waaye bëgg na jullit yi bàyyante xel di ñaanalante rawat na foo xam ne waa ji nekku fi ma nga ci këram nga jekki-jekki di ñaan sa ñaan yëkkati say loxo boole ko ci yal na ko yàlla yokku wér yëkkati say loxo boole ko ci yal na ko yàlla yokku sutura ñaanal ko ñaana ñaana ñaan ba mu baax moo tax ki naan bul ma fàtte ci ñaan wala nag ma ñaanal aw yiw mënta gën a rëy loolu nan moo mënta gën a rëy ki nga am ci moom yaakaar yaakaar ne ma ngay defal yàlla dara nga ne ko bul ma fàtte ci ñaan kooku ñaanal la daa mel ne day dem ba ëpp solo sax nga buub say bagaas walla jël sa alal dem ca nit jox ko mu lay eh, buxaabaal di sampaka eh, cëwree ka defi yëf ñaan gi la sa mbokkum jullit di ñaanal sa ginnaaw te malaayika yi ànd ci ba di ko ñaanal moom borom bi ànd ci ñaan